wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi ndax da nga koo gëm wala daf laa jubluwut wala da koy fàtte liggéey bi fàttaliku leen ko ndax danga nga koo tàyyi ndax dala koo jëralu wala jot gi daa bëriwut ay waay kañ la ñaari millions yi murid yi di mag aw ñaar téeméer mille francs rek par yàlla gërëm la yonent bi gërëm la saa defaru sa àllaaxira defaru ana muriti sëñ Tuubaa yi seeni maam jaayante woon ba tey mënuñoo ñëw ci Touba ci kanam 1000 francs rek par weer bul ko waaj nu ngeen bëgg Touba mel ni des na ci yéen weer wu jot kenn ku ci nekk jaayanteeg Serigne Touba ñaar téeméer yow mi am Orange Money defal cent dièse 144 dièse 621 dièse code bi 20 90 95 sa addiya mën a tàbbi ci biir tuuba ca kanam misrasmia bi jaayi xayri ma nabaat